Albert Ndoye Dame Omar Mané Dame Omar Mané bii moo nekk ca mairie Rufisque Nord Albert ca est tey nag suñu teewaay li ñu bëgg nii mooy fexe ba ndëppal tëngéej ñun ñëpp awlab lébu looga waaye tëngéej mooy buntu Ndakaar boo génnee ci àll bi lépp lu nekk metti nag doomu tëngéej tey mun nga koo wax su ko defee ñu déglu leen jëm cee indi ay saafara dañuy dalal étudiants yi dalal ñu ne ci kër yi waaye dalal ñi nga xam ñoo nekk ci diine gi su ko defee albendooy ak Doudou Mané ñoom ñi nga xam ne ki nekk est kii nekk nord man ma nekk maire central ñu daal di leen ndëpp faj seeni ay soxlo alam nebu waaw loogu wax dëgg la baa ci waxee daa ci kontaan lool ndax lépp loo gis rek dafa am cosaan te cosaan ak lébu nag kenn ku ne xam na ko baa mel na xëy daa dafa ndëpp rek baa ndëppee rek sa soxla wu faju loog nag la noo def tey ndax tëngeej kenn ku nekk xam na ni tëngeej mooy buntam Dakaaru te day lu baab daa laa yëg Dakaaru rek daa jaar tëngeej kon danaa def li nga xam te ni mooy sunu maam lanu daa def ñu jàll ko ci daal di ko def jërëjëf. albe cosaanub tëngeej daa koy waxtaan tey jii ndax ñëpp xam nañ ne tëngeej buntam ndakaaru la ba tey waaye tëngeej jar na waxtaane tëngeej daa jara def assise moo tax tey jii dinañ ci waxtaan ndax ku ne ba waxee sa xalaat ñëpp mënuñu faa dajaloo waaye ku ne daanañ jël sa kàddu daal di toog fii daal di ko waxtaane bu ñu nuppee daal di koy ndëppa seet noonu ko mën sa saafara ndax ndëppa mënul ñàkka waaye li ñuy def nii nag lu rëy la ndax li ñuy def nii mënu cee dégg lu naqari loo xam ne ñoo ko def war a def ñu ko war añ fekk ñu def ko bañu ñu ko wax lu la neex ba ñu wax ko la naqari na dëgg jib fii rek te ñu xam lu ñoo na ñoo ko dékku waaye nag man daaw dañaa di kilifa dañuy jël loolu yëpp jël ko teg ko nale ndëpp moom soo koy def mbubu kilifa da nga koy jël teg ko nale delluwaat ci li nga xam ne mooy aada ak cosaan ndax aada cosaan am na daraja joo xam ne boo ko ci defee rek boo xoolee sa daraja doo topp aada doo topp cosaan daraja dañuy jël teg fële Aïcha kii njëkk dugg maaleykum salaam taxawal nii ci digg penc bi maa leen di nuyu di leen fay waaw foo dëkk ci ban quartier nord war a est maa ngi dëkk Tëngéej est kon sa maire a ngi nii dégg say soxla yow laa doon waxal laa juddoo fi laa waaw bu ma juddoo nag ba léegi. ci poos moo ñu bëgg a rey. yéen ci ban kër nga dëkk ci sa sa ca Barba ba. <laughs> da nga ko wax rek muy moo ñu bëgg a rey man bu ba léegi <laughs> man ni ma toll nii maa ngi nooy xetu foofu. dañ bëggoon ngir yàlla yónnee bi nga dimbali ñu jàppale ñu si. donc ci yaa ñuy rey nawet nawet ak ñàkk nawet ñun day mel ni toujours ci nawet lañ nekk ndax foos yeeg yooyu. lépp a ngi bëgg a rey weñ yaa ngi naaw fu ne fu ne fu ne tëngëj dafa salte dafa salte ba yow boo demee sax da nga rusa wax ne yow tëngëj nga dëkk ah loolu nag ah bëggoon nañ nga fayal ñu ko ah lu dëgg du yoon dañuy def suñu greffage bu baax mais da ngay dox sa dem sa morom yi toog sa biir morom yi def ni di wokkante xebu xasaw parce que xebu foos boobu mooy mujj obligé dugg suñu gerte. wax na dëgg. Ah, ah. loolu baaxul jàppal balaa muy daal jàppal balaa muy daal. na soxlaam. dëgg la. nee na nag boo jógee nga lijjanti foos yi. kooku danañ ko bindal te xam na ne am nga foos yu xeeñ. ci sa loogu ka jàpp nañu ko ba pare. ka ca topp. salaamaaleykum. maaleykum salaam. papa na ngeen def. ça va. yéen a ngi toog. alhamdulilah. kon nag sama a élève. étudiant nga. yaa ngi jàkkaarloog maire Daouda Niang jàkkaarloog Dame Amar waxal a soxla waaw. xam naa ni suñu maire laa jàkkaarloo moom laa bëgg a waxal ca kaw monsieur le maire. waaw man leen rek moo jaaxal. ba may nekk xale. di jàng samay mag yi nekk université. mosuñu am bourse étudiante. ma dem ba màgg mais jàng nekk université mosuma am bourse étudiante mais monsieur le maire loolu foo leen ko teg ñun doomu dañoo sonn dañoo gëm lu ñuy def te dañoo gëm suñu jàng. lenn rek laa la bëgg a xamal dañoo dama bëgg nga lijjantal ñu suñu bourse étudiante ndax ñu mën a am courage volontaire dem jàngi comme suñu morom. waaw xam nga dama wax ko dama tàng. déedéet déedéet déedéet. mu le maire ay reema jàpp ndaw si tubay gi moo teppeeku moo ne moo tax xale yi dañu war di sol di woddu xam nga woddu lii moo tax mu am njëriñ wax na doléance am wax ba pare tubay ba teppeeku loolu ma jàpp jàppay ree kon loolu ajo faña ka ca topp di borom ki nga xam ne ñoo yor diine gi waaw na nekk ci tëngeej am na lu leen metti te comme ka assise nañu wax dañu yor diine gi ñëw salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi nangu ziar bi. fan nga dëkk sama commune nga nekk Tëngéej central wara est wara nord. man fi ñu dëkk laa dëkk. ca yow la ñuy déglu. su wax yow laay waxal. waaw. ndax ñu yor diine ci ñun. te dañuy faral di am ay ay cérémonie ay jàng saa buñ ko amee dañuy obligé dem ba Dakar def fi suñuy jàng bàyyi Tëngéej. lu tax. xel gu bon yi amuñu place. danañ ko faj danañ ko ndëpp. bàyyi ma dem. danañ ko faj danañ ko ndëpp. ah fi nga dëkk laa dëkk danañ ko faj danañ ko ndëpp. ajo ajo ndëpp waaw waaw ni Pape Samba doomu ndeyu ma jigéen ma ca tëngeej segment.